aouzu billahi mina seytaan rajim wa inni aouza bika wa suryataha mina seytaan rajim rabbi aouzu bika min hamasati sayatin wa aouzu bika rabbi an yahduruni barke borom Tuubaa mbokk julli du tedd rawatina sunu mbokk taalib yi ñuy bàyyi xel te di ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen nuyoo fii ci barab bu tedd bi nga xam ni mooy Daaru Almuxti waaye di leen nuyoo nag fii ci kër Serigne Ganna Messere Maxtaar mbokk yi sunu diggante ak màggaluk Daaru Almuxti fan yu néew moo ci des kenn ku ne xam na ne bu ñu toogee jataay yi ñu toog yaakaar na képp kuy seetaan te daan ñu topp ci dara danga xam ni noo ngi waajalati bis bu am solo boo xam ni mooy bis bi Serigne Gana di sant Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul di ci dolloo delloo njukkal borom Daarul Moxti waaye nag di ci fàttaliku ak a ñaanal Cheikh Mahamadoul Mokhtar Mbacké moom Serigne Cheikh Awa Balla yaa ghafaru zunub moom Cheikh Ibrahima Fati borom Daarul Moxti mbokk yi bis boobu nag ñu di ko waajal mu war a doon dimanche le 25 février ci atum 2024 fii ci Daaru Moxti waaye fii ci kër Serigne Gana Messere Maxtaar bokk yi nag Serigne bi di Serigne Gana euh, ren mu jël bis bi duppee ko koo xam ni yaakaar naa bu ñu tuddee aw turam képp koo xam ne lislaam ñor na la wala nga xam dara ci yoonu murit da nga xam ni yelloo na bis bu ñu tàntal Serigne Touba wala borom Daaru Moxti ñu jox ko ca cër kooku mooy kan Serigne Alioune dara Mbacké moom Serigne Ahmadou Dame Fati moom Cheikh Ibrahima Fati borom Daaru Moxti di koo xam ne ni ma ko waxee sànq ci appel bi tabarakallahu boo da nga ko lim ci ñun jamono waaye bu dee ci jëfam ak martabaam ak xam-xamam ak pas ak pas-pasam fa tabarakallahu da nga ko yéegal nag ba ca mag ña nga xam ni fa tabarakallahu ñoo ñànk diine taxawal ko daj ci lu ne ba mu yegg si fii tey fa tabarakallahu boo dee lim ca mag ñooñu nga ko mën a boole noo ngi ñaan yàlla sunu borom dolli ko fa yàggal lool mbàkke te mu ànd ko wér eh, ci waxtaane wi ni ko bëgg a waxtaane ngir fàttaliku ko ndax mbokk yi kenn ku ne xam na ni nag nit suñu ko tuddee bis dañoo war a ay jikkoom indiwaat itam jëmmam indiwaat ay doxalinam indiwaat itam ay jëfam ngir ndaw ñi ak ku bëgg lu baax mën a ci moom moo tax ñu indiwaat nag tey jëfi sëriñ bi na moom ba muy jëf ñu di ko indiwaat di ko teg ci taabal ji taxul woon waaye doyoon na sëkk ñu ne sëriñ bi moo defar Cheikh Ablaye Ndiaye mi toog Cheikh Ablaye mi nga xam ni boo ko tuddee tudd kuréelu xuddaamu gu mag googu waaye sëriñ bi nag defar ko muy seexu mu rab bi mu toftal ko mbooloo waxuma la defaru sëriñ bi waaye moom ci jëmmam sëriñ bi da ko joxuk defar muy defare Cheikh Ablaye noo ngi lay dalal bu baax te di ñaan yàlla suñu borom yàggal la fi eh, defal la tawféex ci suñu wetu càmmooñ ñu am fi Cheikh Adama Ka Cheikh Adama moom boo nee jàkk jëmmam rek da xam ni sëriñ Aliou Ndeye dara mën a defar noo ngi lay ziara bu baax ka tey ñaan taxawaay bi yàgg lool ngay seexu mu rabbi sëriñ Alioune Ndeye Dara euh, defaru na ci fànn yu bari fi mu bokk waaye jëfi boppam waaye diggam ak yàlla nag nga xam ni wax di wax daal diggam ak suñu borom nga xam ni kenn doxu ci kenn góor mënu ko ci kon ku ko neex mën na laa def nu ko neex waaye noo ngi ñaan taxawaay bi doolu lay yàgg lool ngeen teew fi day jëmmam ci sama wetu càmmoñ ba léegi géewalu Cheikh Ibra Fati borom daaru moo waxtu sama ndiyaay sëriñ Mohamed Lam ku ni tudd di tudd borom daaru boo toogee wala ñu jël kàddu jëme ci yow war na caa ubbi waaye rawatina nag diggam ak sëriñ sëriñ Aliou dara moom sëriñ Ahmadou Dame Faty boo bokk nañ ci cosaan waaye nag digganteem ak yàlla ñamal na ko ci loo xam ne ñamu ko fa nen kon nag noo ngi ñaan yàlla suñu borom doon laa defal taw tawféex moo tax dañu fas yéene ubbi jataay bi nag ci xamle jëmm ju baax ju tedd jooju ñu di ko xam taxul muy jëf waaye ñun jamono ñoo ko bëgg a xam ñoo bëgg xam ci moom tuuti ngir fa tabarakallahu ku ko roy soo ko mënta jot itam danga mën a raw sag maas moo tax sëñ sëñ sëñ Mohamed wala fi dañuy wax ni boo gëstuwut loo bëgg xam cosaan la boo wutuut ñu far la woon safaan ba moo tax ñu bëgg indi nag ñoo xam ni defaruk sëriñ bi lañ sëriñ bi euh, sotti ko ci ñoom ñu mën caa jaare xam la kan mooy sëriñ Aliou Aidara waaye ci yow la ñuy jaar laaj bu njëkk bi mooy boo ñu doon présenté jëmmi sëriñ bi dañu defal portrait moom sëriñ Aliou Aidara loo ñuy wax aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim euh, Cheikh Moustapha ñu ngi lay nuyu di la ziar di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla yàggal ko lool te wéral ko di ñaanal Serigne Bassirou Anta Niang xalifa maam Cerno Birahim yàlla yàggal ko lool te wéral ko di nuyu ak ziar xalifa Serigne Dame Ahmadou Fati di Serigne maam Cerno Mbacke ak mbooloo njoru Serigne Dame gi yëpp di ziar sunu lépp di sunu yaakaar di sunu Serigne di Serigne Aïdara Mbacke moom Serigne Dame Ahmadou faati Moustapha di nuyu waa Rafah TV euh, Cheikh Mourtala ak ñu mandal ñëpp di jaajëfal sëñ Gana Messere Makhtar ak mboolem mbooloo mi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci liggéey bi Moustapha euh, laaj nga ma lu ma neex laañ nga ma lu ma xam itam nag bu ne kuy sëñ ay Dara day baax ñu xam fu mu bokk ndax Moustapha ñetti judd yi gën ci réew mi sëñ Yaay Dara bokk na ci mooy bokk ci surafaay di shérif soo jëlee sëriñ daam Ahmadou Faty baayam jël soxna Kumba Fall yaayam dem ci soxna Jëmb Diop dem ci Dramane Fall da ngay dem direct Sidna Aline muy muy shérif boo jëlaatee sëriñ ay dara jël sëriñ daam jël maam Cerno Birahim la dem kooku yi soxna Faty Issa maamam ñëw nga ci réew mi waaye boo ñëwaatee sëriñ ay dara jëlaat sëriñ daam bàyyi maam Cerno Birahim maamoon ànd sëriñ maam balay maam maaram waaye itam soxna Joor Njaay yaayam xam nga ni mi ngi bokk ci buur kër Marama Sele nga xam ni tey bu nu woote woon ak nguur tey Sëriñ Ayda day falu bi Sëriñ Tuubaa ñëw gën ñëpp itam day sédd ci ñaari cër waaye tabaarkàlla Moussa loolu doyu ko moom ndax damaa déggoon nga ni boo tàllalee sa loxo ni lii la sama def tàllal sa loxo ni lii la sama baay def te mënoo sa loxo ni lii laa def boo ko ak boo ko ci gàcce nga taxaw Sëriñ Ayda nag mu ngi seedal ni nu doon doy médecin taxul di opéré moom doon doomi sëriñ daam rek doyu ko doon sëtu maam Cerno Birahim rek ko waaye itam bu santuloon Mbàkke itam am lii mu xam nga Moustapha sëriñ Tuba mooy yërmandee jaam ñi te sëriñ Yadira dafa xool ci fi gën a sensible mu mëne fa ndax fekk ñu baax nga leen dolli mbaax baax na waaye fekk li gën fekk ñu réeroon xamuñu kuy sëriñ Tuba xamuñu kuy borom daaru xamuñu lii yàlla nga fexe ba nu xam ko muy jëmm joo xam ni tabaarkàlla am na ngërëmal baayam Moustapha maam Cerno Birahim maami Serigne Aydara lu mu am ci Serigne Touba liggéey ak jaamu yàlla moo may Serigne Aydara doon doomi Serigne Daam loolu doyu muy takk di ànd ak dongo yi di dem Cameroun di takk di jàpp machine di bay di naan ci ndoxum dégg mi di lekk ci li la dongay lekk di tëdd fii dongay tëdd ñu bari xamuloon lu xew lii la bëggoon bis bàyyam ni ko teelaale dafa lu gën bay nga xam lii mu am ndax dañ ni bayre tuddul bayre bayre la tudd ku sa bayre nga nga am bayre c'est-à-dire kon lii mu am daf ko jënd ba mu jar waaye Moustapha mu nekk ci yoonu mu wi ñu nekk day wax ni bëri naa ciy baay waaye jamono ji toll amul bëritu ci ay baay mu ne aw yoon nag boo dee bëritu ci ay baay am ciy mag rek war nga am noo doxe te cër bii Serigne Touba di séddale borom daaru bu doon aw nag ñi ko war a sàmm ci la bokk te koree amel ko bor te Moustapha nit de bokk ci ak bokk bokk ci biir bokk gi juddoo ci màgge ci bu tàggoo tukki ay bokkam day day leen am lépp jox mu toog ngir bu àggee di leen sëggal nit juddoo ci bokk gi yaroo ci bokk gi màgg ci bokk gi bu tàggoo tukki ay bokkam day leen am lépp jox ko ngir bu àggee di leen siggil xam nga ni maam Cerno Birahim nii ñuy waajal màggal gi Sëriñ tubaab ba muy tukki da koy joxoon lépp waaye sëriñ itam tey boo doon xool référence borom daaru yi ñuy liggéeyal maam Cerno Birahim doone benn ni ñaar néew si ngay jar ci jëf ndax dafa ni ku ne sa xaqiqa mooy sa réalisation nit ki boo nee maala man mbaa mënoo ma dañ na xool li ngeen jëf tey boo duggee Dakar dugal cees dugal Ndar dugal Kaolack à travers le monde entier léegi waxatuma ci Afrique waaye ci Amérique ab liggéey mi ngi fa kon jëmm la joo xam ni ci buur ca la bokk jëmm la joo xam ci surafa fa la bokk waaye jëmm la joo xam ni Serigne Touba ak borom daaroy maamam muy liggéey liggéey bu rëy Serigne Gana Messere def lu am solo nag ndax Moustapha nit ki buy liggéey di liggéey di liggéey di liggéey ba bis bi nga xam ne sëriñ Aïdara yoo xam ne borom daaru amul lu ko gënal ñun suba la ak màggal kum ko mës a tuddee baax na kum ko mës sa tuddee neex na waaye tey cër bii mu am daan xam ni bokk te cër yi fi daa jaar li tax nag moo di daa daa teg borom daaru foo xam ni dama ne kenn teg ko fa ah waaye kenn dabu ko ndax tey ñu bari liggéey bi ak taxawaay bi yokk li fi maam bàyyi woon moo am solo Serigne Aidara xool taxawaayam ci yoon wi xool taxawaayam ci kër maam Thierno Birahim li gën a Serigne mu nekk ci yori daara yori dong di leen dundal sa ndey du fay sa baay du fay mooy faj mooy taxaw te fa doomi jàmbur yi nekk fa la ak njabootam nekk danoo wax ni nu diggante sëriñ ak taalibe bu sëriñ dee buur taalibe di jaam bu sëriñ dee borom taalibe di àll ne diggante sëriñ ak taalibe nawloo rek nekk te Moustapha toog ci kaw ma toog ci suuf nekku ci sëriñ Aidara ku mu àndal fexe na nga xam yàlla comme àndal fexe na nga xam nan ngay liggéeyal sëriñ Tuubaa réew mi ñu nekk mosoo fay dégg histoire am ñu njabootu ay dara yar na leen jàngal na leen taxaw na leen te Moustapha li ci biteel bu dëgg la li ci saam bi du ay nax kon jëmm la joo xam ni ah ñoo ngi sant di gërëm di ñaan man na Moustapha ñëpp ci war wax waaye ma ma maa ci raw ndax gis na ni ma def dama wax ni ku dul moom mënoo ko ku moom ni ma def mënoo ko kon bu ñu taxee sëñ Gana jël bis nga xool jàmbaar yi rek doy na sëkk ñii kii boo dee bun gam nekk ma ngay tuubal di dugal ci tarixa bi di jubbanti di soppi di orienté xam nga wa fi yi ni xuddi mun asda sëñ Tuubaa ne ay ay toolam du rakk ne dans change champs je récolte à tout instant nee na garab gi bu dee téeméeri doom nga watta junni sax bu dee junni téeméeri junni sax Seye Aidara foofu teg tànkam di liggéey liggéey bu rëy Moussa nag dama di géwél te wax ji du gudd ma bàyyi sama sang yi sama kilifa yi Cheikh Adama Ka ak euh, Cheikh Ablaye Ndiaye ñu gën a dugg ci waxtaan yooyu di la beral cant di la gërëm di la ñaanal yàlla guddal soo fan ndax ci bokk nga bokk waaye foo jële micro ñëpp bég kon ñoo ngi ñaan yàlla yàlla guddal soo fan yàlla boo am accident làmmiñ yàlla yàlla gën a taxaw yàlla yàlla gën a jàppale ndax ñi war a wax ci borom daaru ci nga bokk ndax kër bu muy ñëw di sañ ci daaru muxti sama am rek a nodd kon tey bu ñu gisee sëriñ Bassirou Anta Niang toog di wax ngay jottali waaye sëriñ Bassirou nga def appel loolu war na kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax daal na ko ñëpp waaj le 25 la bu ne suba la màggal Moussa loo musu gis da nga ko gis waaw ñu jox rendez-vous ñëpp le 25 ñoo ngi sant ñëpp. tubaarkàlla macha allah salaamaaleykum wa rahmatullahi. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf euh, sëriñ Mohamed Lam géwalu maam Thierno Birahim yow fa tubaarakallahu loolu nga wax euh, kenn jiituwu la ci ndax sama ndijaay la sama lépp la. waaye sëriñ bi li nu doon ci borom daaru dañu ko jox ba mu mat moom sëriñ lay dara ba noppi dolleel ñu ci loo xam ne nag fa tabarakallahu mbaa xam la te du ko jënd la waykat ba euh, Cheikh Amadou Kara Mbacké Nouré ni keroog euh, ba ko bi way ni ko Ahmadou Mbacké Ousmane ndax liñ lay jaay da koy jaay mbub moom boo ko solalee sëriñ Aliou Aïdara da ko da koy jot moom li mu jënd ca diggante yàlla ak yorente bi da ciy maye mm-hmm. jaayaatu ko ndax bu ko doon jaay kenn amul njëgam te ñii ma toogal xam nañ xam nañ ko bu baax yàlla na yàlla dolli ko fee yàggal màggal gii nu jib bis bu ko waay tuddee neex na ko waaye saaban gi nag yemalewu ko dara man li may wax man la marqué daaru fi laa juddoo fi la sama baay juddoo sama maam ak Cerno àndoon sanc dëkk bi waaye géttu nag wala géttu gileem wala ay xar ba daaru dee daaru leen kër sëriñ Aydara laa ko njëkka a tege bët jinax nag bu génnee danaan jinax génn na bu jeneen génnee doo tudd jinax ni jaay jeneen lay tudd jeneen waaye lu fi am ci lu ñu defal Cerno Birahim jiitalal koy nag walay xaar walay giréem moo ko njëkk defal Cerno Maam yal ko yàlla doolee fayal sëñ euh, sëñ mission bi day ñaar bu ñu nee Ahmadou Bamba mooy doomi soxna jaaritu la ak sëñ Mor Anta Sali waaye Xaadimu Rasul nag amul ñaari waajur mission la moo tax tey waxtaan wi dañ koy tënk ci ñaar sëriñ Alioune dara moom jëmm ja xol bu rafet ba laa biir gi mën a defare ja ak yërmaane ja danga ci ñëw ak ñun euh, Cheikh Ablaye dana ñëw ak ñun dana ñëw ak ñun ci xidmatul xaddim Serigne Aliou ne dara mbooloo mi ko yàlla booleel ci yan euh, ci yan mbir la leen tënk fu mu leen jaarale ba defar leen ba tey jii foo tuddee njabootu seen dara ñu bokk ci ñi gën a noppal ku fi nekkal Serigne Touba Cheikhul Khadim Cheikh Adama laaj bi ma laaj euh, say sëñ Mohamed rek loo ñuy indil ci kat mooy jëmmi Serigne Aliou ne dara ci yërmandeem ci jikkoom ci mën a taqoog nit ci mën a defare waaye ci mbaaxam nga nga xam ne nag da ko doon ne ci ay maamu. aouzu billahi samii al alim min acheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim. wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin afsahil arabi lisaanan wa ablaqil bayaanan saydil kawnayni wa saqlayni sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman borom daaru moxti barke Cheikh Alioune Haydara Mbacké sëriñ Moustapha ñu ngi lay nuyu baax di la ziar te di la jox sa wàccuwaay di jiite ci nuyoo beeg ziar bi xalifatul aam li tarixatul muridiya mu cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir ñuy ñaan sunu borom yàggal taxawaayam te wéral ko lool ba naal yim naal ngir liggéeyal ko Serigne Touba sunu borom may ko kàttan gu ko yeggalee te ko ak yëpp di ci toftal Serigne Mouhamadul Bachir Anta Niang nga moo fi toogal toogaayu borom daaru moxti ñuy ñaan sunu borom yàggal taxawaayam wéral ko moom it naal yim naal ngir liggéeyal ko Serigne Touba ak Thierno. suñu borom may ko kattan gum ko jëfee te yeggale ko ak sagoom te ànd ko yëpp waaye tamit di ziar tamit suñu lépp muy sëriñ Alioune dara Mbacke mu karamu du ñaan suñu borom guddal fanam te wéral ko musal ko ci ndox musal ko ci cat ak lépp luy gàllankoor rek sunu borom musal ko si ba moom it naal yim naal ngir liggéeyal ko lislaam gi te jiital jiital ci ndaw ñi sunu borom tamit may ko kattan gu mu ko yeggale te ñu ànd kook moom di nuyu waa ma njabootu sëriñ Dame faati gépp di ko dalee si maam Thierno Dame ba ci sëriñ xaalit Mbacke ñuy nuyu ñëpp di nuyu suñu wayjur wi soxna Umul faadal njaay yaay joor ñaan sunu borom wéral yaramam te guddal fanam lool yàggal ko sunu kanam ba saa yu nu rek gis ko suñu wet ndax mënu fee ñàkk di sant baax ci laaj bi nga ñu laaj mm, dañuy faral di wax naan wax ci sa baay mm, yellut waaye nag dafay la ndax am na baay yoo xam ne nii njaboot gin jiite fan leen war a teg taguñu leen fa kon bu nu amee ku mel ni Serigne dara Mbacké ci defaram dañuy sawar ci wax ci ndax dafay am événement yoo xam ne boo xewee da dañuy dañ naan ana témoin oculaire yi ñi nga xam ne ñoo ko fekkee ci seeni gët kon ñun témoin oculaire lan ci defaru Serigne Aïdara Mbacké ndax moo ñu defar waaw dama koy faral di wax naan ko sëñ bi ñun kenn wéttali wala ci sunu jëmm yi ñun mm, nekk nu demunu feneen ñu nuy defar ñu ñëw mu fecc lu ñu dafa noo fekk table rase mu def ñu liñ doon waaw lu lu lu lu nit di xool ci ñun rek ci moo moo ko ci def waaye li am solo mooy sëñ Aydara Mbàkke bi muy ñëw da ndakaaru diñu fekk géejawaay dafa ñëw fekk ñun ñuy ay doomu géejawaay doomi ndakaaru doomi géejawaay juddoo fa yaroo fa màggee fa ba pare melee fa nañu fa mel ci catégorie yu bëri nag nga xam ne sëñ Aydara maanaam récupération des jeunes en déperdition man man moom si sëñ Aydara laa ko mës a déggee man damaa jàppoon ne ab sëriñ moom maanaam toog rek di nangu àddiyee la mm, waaw bu nit ñi ñëw boo ñëwee toog nit ñi siyaar dégg seen loxo nga ñaan après dem waaye sëñ Aydara Mbàkke dafa ñëw andil lu li sëriñ Touba ndekete andi woon ndax Sëriñ Tuubaa dafa wax ne bil Mustafa nawaytuma yu jaddidu sunnatoo xara wa inni ahmadu waaw te ku ne xam ne ne yonente bi sallallahu wax na ne bi fiy jógee dem na bay jo men di jooytu sunu borom maanaam su ma fi jógee sama ginnaaw ummati ummati sama ginnaaw waaw waaye sunu borom wax na ne xamal kan xamal na ko ne bu demee ba jëmmi jamono danaa jël ci sama jëmm ak sa jëmm def ko jëmm wàccee ko ci kaw suuf mu wutu la Ah, kon bu sëñ Tuubaa ñëwee ne bil Moustapha nawetuma yu jaddidu sunu toxo xaraaw in ahmadu kon dafay mel ni mm, li ko li sunu borom waxoon Seydina Muhammad loolu da ko def jëmm muy muy Serigne Touba waaw waaye Serigne Touba tamit dafa dem ba mu yàgg mu def zuriyatan tayyibatan tu jaddidu nax ya nabil Moustapha taj taxidu ndesu laaj sunu ñaan suñu borom na ko defal ma ma am ay sët yoo xam ne dañuy ñëw ñoom it la ma doon yeesal ñoom ñu nekk ku koy àggali man ma wax ne ñaan googu bi ko sëriñ borom bi ko sëriñ Tuubaa ñaanee yàlla dafa nangu ñaan gi def ko jëmm maanaam wàccee ko kër sëriñ kër kër sëriñ Dame Faty Mbacke mu tudd Alioune Haydara Mbacke waaw kon mu jaddit bi mu doon bi sëriñ Tuubaa doon def sëriñ sëriñ Haydara Mbacke ci loolu la nekk ndax sëriñ Tuubaa lan la fi nekkee woon taxaliya taskiya tarbiya tarxiya waa maanaam dalay dalay dalay jàngal ba nga ne ar mu yar la ba nga ne nër mu yee la ba nga ne jar muy yéegalal la sa borom ndax Serigne Touba moom àggale nit ñi seen borom moo ko tax a jóg. ndax yoon mi yoonam bi bi ko bi ko taxawalee bu ko neexee mu tuddee tuddee ko yoonu mbusu mbusu bi yéen a way maanaam santu way juram bu jigéen. baa mu tuddee ko yoonu mbakke mbàkkee yow la santam. waaw waaye da ko tuddee yoonu muridullah mooy ñi nga xam ne dañoo namm yàlla. ki namm yàlla nag man rek fi mu doon su la nammee dinaa def yitte ba woo la téléphone dégganteek ak yow. waaye wala su ma na namee dana def yitte ba dugg oto fekk la ba sa kër naa dox def dana def yitte daal jóge barab ngir ñëw fekk la fa nga ne kon ku namm yàlla war ngaa jóge ci barab dem ci barab te loolu mooy sayru ilallah waaw sëri sayru laa boobu nag mooy fexe ba jël ndaw ñi tàggal leen ndax sayru bi sax warut woon ndax sayru mooy ngay ngay dox ngay ngay dellu kon nag dellu bi waru woon li li waroon mooy nga toog fa da faa waroo foon jóge waaye day fexe na ba boo sàgganee ba jóge fa mu fexe nag ba nga delluwaat def sayru laa mooy dox jëm ci sa borom xam nga dox ci jëm ci sa boroom nag waaye nag dafa wax ne sayru ilallah yantahi day jeex dox jëm ci yàlla day jeex mu ne nag sayru fillah laa yantahi maanaam dox dox ci yàlla du jeex waaw suñu doon nii ñun bi ñu bi xëyee di ñëw Daaru Moxti dañoo doon def sayru ilallah waaw jógee barab di ñëw waaye bi ñëwee fi mu toll nag bi accès ba léegi nag dañuy dox ci biir daaru kon nag Serigne Aïdara dafa fexe ba àggale ñu suñ borom gu nag ndax ñun dañoo dama wax naa ko sànq dañoo nekk ndakaaru gis nga bu sa bu sëñ mi ñëwoon indi ay naxe bu ñu àndeek moom du yàgg dañuy départ dañuy départ dafay faral di wax dafa faral di ñu wax naan nu gis nga ba ma wéetee ak yéen ñu ñu waxtaan ba juboo waa biti dinañ ma gëm waaye yéen du ngeen ma gëm waaw mu ne mu ne bu ñu wéetee ci néeg na affaire bi nañ ko waxtaanee man maay def lii kii mooy zéro bi kii mooy def lii mu ne ñi si biti den den ma gëm de waaye yéen du ngeen ma gëm te ñun dañ koy faral di ko waxtaan suñu biir dañuy dañuy wax naan ñun moom xaw lu mën a xew waaye sëñ moom dañ koo ragal te pourtant sëñ bi du dóore du saaga waate du gëdde du xaste du bëncëngal nit dafa lewet waaye lewetam googu yëpp fexe na ba kenn ñemewu ko nag maanaam kenn ñemewu ko mooy kenn kenn yebu ko waaw ndax mën nga woyof lewet doon yërmande ba tax ñu ba tax ñu yeb la waaye Sëñ Aïdara dafa fexe ba ñun yebu yabunu ko waaw nu ko ndax yenn saa dañ koy jëw naan sëñ bi de xaw ma loo ko mën a tegee dil lu dul yàlla moom yàq nga ko <laughs> boo koy teg dil ci yàlla nga koy teg dil mënoo ko teg dil ci xaalis mënoo ko teg dil ci daraja mënoo ko teg dil ci jigéen waaw te loolu ñun tee mooy oculaire lañ ci waaye pour wax la defaru Sëñ Aïdara Mbàkke yitte gi mu ciy def maanaam Sëñ Aïdara Mbàkke laam mës a xamee ab sëriñ bu toog ak ay dongaam timis di waxtaan ak ñoom di waxtaan ak ñoom ci yàlla ci nit nit war a mel ci nit du war a defaroo ban noddu fajar laa la wax timis laa la wax ba ñu noddu fajar mu yeewi mu yeewi ñu buñ demee bu ngoonee xam nga rek naloo yi jàpp ni duñ ñëwaat moom bu fajaree moo ni fëgg ñun suñuy kër sëñ Aydara def na ba tàyyi ndax sëñ Aydara dafa dafa fexe ba def lu yéeme mooy ñi muy defar dafa fexe ba def leen ñu den ñu doon ay mbokk mu doon benn famille nga xam ne ñooy àndandoo di répétandoo xas yi ñooy àndandoo dem daayra waaye ñooy àndandoo bokk benn néeg bu ñuy fanaan benn néeg boobu ñuy fanaan sëñ Aydara Mbàkke dafay ñëw 5 heures du matin fëgg ñu fekk nu fa diñu di maanaam li koy jur war a def ci doomam bu góor sëñ Aydara moo ko def ci ñun sëñ Aydara dafa def ci ñun yàlla maanaam yarnu teg nu si siraatal waaye li nga xam ne suñu way jur yi ñoo ko waroon def si ñun ndax ku am sa doom bu góor mu tàmbali jëm mu kàllaaf yaa ko war a saytu ci lu bal lu góor di war a def waaye loolu si Aydara Mbàkke sax moo ko def si ñun waaw moo moonu li war way jur waroon def moo ko defal moo moo nu ko def góor yàlla nii lay tëddee góor yàlla du tëddee nii góor yàlla nii lay doxee maanaam dalay dalay defar ba defar la boo wéetee ak sa bopp kase boo wéetee ak sa bopp dafay def ci yow jomb jomb waaw fi mu toll nii sëñ bi dafa fexe ba lu bari dañ ko jomb maanaam wax ci moom dafa bari ba nga xam ne loo wax dangay ngay bàyyi waaye daal ci tënk sëñ Aïdara Mbàkke li sëñ li sëriñ Touba doon def moom la ñëw di ko defaat sëriñ Touba dafa def ñu gis mu bind ba wax ñu dégg sëñ Aïdara Mbàkke dafa def ñu gis ndax am na ku koy wax sànq naan boo demee géej waaye moo dox loo lafañ ba loolu ñun témoin oculaire la si parce que xam nga mën nga dem rek jëli sab lafañ feere ñëw indi si koñ bi rek na maa ko doxloo waaye ñun dañoo dëkk ci koñ nit ku koo xam ne ni marem naar lañ koy wax marem naar suñu koñ la dëkk ay at sëñ Aydara Mbàkke dafa joxu ko sunguf joxu ko ren joxo jógal dox ci barkeb Cerno la ko wax mu ne ñokket jóg di dox tànkam am koo xam ne nii ma xujja la tudd Pikine gii la dëkk wetu oxygène waaw ma xujja Pikine Pikine la dëkk wetu wetu moom it dafa laf ab lafaañ la buy raam ay at nijaayam moo xamante ku ñuy wax Yunus Njaay di goro ci sëñ bi ndax moom mooy mooy magu ñaareelu soxna bi bi sëñ bi denc magam la ñoo fa la xamante bi jóge sëñ bi tamit dafa dem foofu ne ko jógal dox ci baa keb na ma xujjee ne ñokket jóg dox kon loolu mooy def nañu gis waaw loolu mooy loolu mooy def nañu gis waaye wax ñu wax nañu dégg moom moom moom loolu moom àdduna sépp xam na ne mi ngay wax ñu dégg waaw waaye tamit bind na jox nu waaw ndax ndax maanaam bari na lu ay maanaam lu lu mel ne faydul xaydara bi waaw faydul aarifin wa sulamul raaxibin wal fannaaw fillaahi wal baqaaw fillaahi waaw waaw dañuy dañuy dof ci yàlla waaye tamit wér ci yàlla loolu maa ngi fàttali ñëpp ni palaato bi ni jagleel sëriñ bi hmm. danañ ci ànd ak ku mel ni sëriñ xaadim xaadim Mbàkke Anta incha allah mu yaatal mu këpp géej gi waaw waaw waaw maanaam ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ni xasida yoo xam ne da koo way maam Thierno ak xasida yu mu way Serigne Touba Xaadimu Rasuul kon maanaam sëñ sëñ intérêt fii sëñ Touba jaare la woon mag ñëpp foofu la jaare ak ñoom daf noo tarbiya taaliyanu taskiya tarxiya ñun lu ñu yeewu ci àdduna sëñ intérêt ko def ci ñun personnalité bu nit di gis ci ñun ba koy naw sëñ intérêt ko def ci ñun ba pare tarbiya ñu ba pare ci ndakaaru la ñu tarbiya xam nit ñi bu njëkk nit ñi dañoo jàpp ne pour nga tarbiya da ngay dem àll dem ci kii waaye sëñ Aydara Mbàkke ndakaaru lañu ñu tarbiya ñu dem ba mel ni ñun sax mosuñu jaar daara nasaraan waaw nga xam ne kon tarbiya bu wér boo xam ne ni danga boo yëg lay doon waaye nag mu tarxeenu nag gis nga buñ ko yëgul woon dan nan ko yëgunu ko waaye dañ koo yëg nag dafa noo jële fii yóbbu na fële waaw dafa noo maral ak suñu borom ñu yëg ko yëg gu wér nag boo xam ne nii maanaam da ngay jaxasoog moom rek ngir xam ko du lu ñuy expliqué waaw waaye si gàttal daal sëñ Aïdara Mbàkke daal moom defaram moom moom moom moom moom yéeme na daal tabaarakallaahu si Adama mi ngoog mbokk yi yaakaar naa lii bu buñ ci yemoon day doy sëkk lii mooy wane ni eh, Serigne Alioune dara moo mën a defare ni nga ko waxee ci ni nga daanelee bari na ñooñ bu ñuy defar ñooña ñoo ngi leen di ñoo ngi leen di sant bu baax ndax defar rek am solo waaye bu ñuy defar danañ la yóbbu ci barab bopp dootoo gis loo man a mus loo warul woon a mus dootoo gis foo daan dugg ci barab yoo xam ne ay yëngoo fayam foo daan dugg dootoo gis loo xam ne daan na dox sa digg ak sa borom waaye moom fa ko daan defee di ko fa dundee fala lay fekk defaree la fa ba yow ngay mujj ngay defar ñoo xam ne ñooñu da leen seexlu loola Serigne Aliou Noy Dara ngoog yàlla na ko yàlla doole fayal mu doole fay yàgg lool te ànd ak wér Cheikh Adama jërëjëf Cheikh Ablaye indil nañu yërmande sëriñ bi ak mën a defareem fa tubarakallaahu lewetam waaye taxawam ak boromam nag ak jeex ca moo tax ku jàkkaarloog jëmm ji danañ ma xam naa danañ maa fi seen photo bi ku jàkkaarloog jëmm ji da xam ne jëmm ju jeex ci borom bi subhanahu wa taala ngi noonu loolu indil ci jëmmi sëriñ bi yow moom lépp dañ koy tënk rek ci ci ci eh, ci kuréel gi nga xam ne mooy xidmatul xaddim ci lañ koy tënk ndax moo ëmb mboolem ku sëriñ bi defar rek marale la mbooloo am na nu mu tuddee sa kuréel ñoom ñëpp ñu ngi dajeeloo ci xidma jëmmi sëriñ bi xidma nu mu koy dundee nan la koy dundaloo ak njabootam nan la leen ci yarale ba marale leen ak lëggeel Serigne Touba ba foo tuddee lëggéeyub Serigne bi tudd ñenn ci njabootu Serigne Aliou Aïdara si ab sëriñ mu Moustapha euh, noo ngi leen nuyu gannaaw ba ñu nuyoo mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan ci àdduna bi yëpp mbokki internet yëpp noo ngi leen di nuyu euh, di sant bu baax ci jataay bii nga xam ne euh, Serigne Gana Messere jagleel na ko Serigne bi ngir taxawaay bii mu am ci liggéeyub sëñ Tuubaa wi waaye li nag lii day wane na sëñ Gana Messere bu ne sëñ Tuubaa rek la bëgg bu ne bu ne bu ne moom liggéeykatu sëriñ Tuubaa la euh, day daal di wér lool ndax moom sëñ Tuubaa rek lay dàkk te fu mu ko yëg toog fa kon nag jëf jii mu jëf ñoo ngi koy sant ci mboole seen euh, fédération bi yëpp foofu nga dugg nag muy xidmatul xaddim sëriñ bi da ko tàmbale ca ni ko sëriñ Mouhamed Lam waxe sëriñ bi dafa nekk Thiès di jàng ni ko doomu soxna yëpp di defe nekk Thiès jàngi arab ci école sëriñ Mourtala yi sëriñ daam woy juróom moo woo ko ne ko bàyyil njàng mi ma def ci yow lu gën jàng mu jóge Thiès ñëw Daarul Moxti sëriñ bi yóbbu ko Cambérène na ko sëñ bi nettale léegi mu nekk fa di liggéey ci tool yi di liggéey ci tool yi ba sëñ daam fekk ko fa na ko bis ni ki tey gërëm naa la yàlla gërëm na la Cerno gërëm na la sëñ Tuubaa gërëm na la ngërëm loola nag waroon naa doy sëkk de xanaa waaye 93 bi sëriñ daam wuy jee boromam sëriñ bi moo ñu waxal boppam nañu sëñ daam baax na lool waaye nag damaa bëgg sama yëfi bopp sëriñ bi daal di gental kërug daaru gii muy troisième étage ba bàyyi fi bàyyi fi pension député ndax sëriñ Dame était député à l'Assemblée nationale mu bàyyi fa loola privilège yooyu yëpp dem gumba ngéewul tàmbale fa liggéey bi ñuy bëgg a waxtaane muy xidmatul xaddim liggéey bi nag bi ko sëriñ bi di tàmbale ngumba ngeewul dafa dem ab fa pakk def fa mbaar di fanaan ci mbaar mi mujj gi waa ngumba ne dof la dof bi lañ ko doon wooye mujj gi waa dëkk bi ñemewuñ ko buy dox nit ñi dañ koy daw mu ànd ak ñoom Cheikh Daam ak ñoom màgget Mbaye ak jëwriñ yooya mu leen di tërbi ci yàlla di leen jox turu yàlla nekk ci ak ñoom waxal nañu boppam nañu Baay Faal ñoo daan dem di màjjaali ci may gay desitu mburu yi di ko andil ngir moom am lu mu xewloo te xoolal lim bàyyi daaru moxti boobu nee na yëfi boppam lu bëgg foofa la ko sëñ Tuubaa fekk foofu la ko borom Daaru Muxti fekk foofu la ko jàmbaari sëriñ Tuubaa ji Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul dina fekk moo ñu waxal boppam nañu Cheikh Ibra foofu la ma fekk fasanteeg man kóllëre ne ma sa liggéey bii bëgg naa cee bokk loolu li koy firnde ñun ñi woo nañu yónni ñu ci tuddam woo xam ne daa bind aw kayit lam kayitu ne boo leen ko taqal mukk te àggoo leen ci liir bi boobu ñoo ko doon tuddali ñun la yabal maag Cheikh Daam ak jëwriñ ak cheikh yi bi ñu àggee ubbi kayit bi mu bind ci Cheikh Ibrahima Fall Mbakke mu tuddee ko tu tànkam ñun ñëpp ñu jaaxle ci loola ndax dana bu kinti ji kayit bi bi ñu àggee ñëw toog ci itam jaaxle mu ne xanaa def leen da leen a jaaxal waaw mu mu ne mu ne dama doon fàttali Cheikh Ibra kóllëre ga ñu fasante woon moom laa doon feddali ci sama tu tànk bi boobu nag ngumba ngéewul googu lañ fasante kóllëre waaye foofu sëñ Tuubaa da ko faa feeñu moo ma waxal boppam ne ma ne ci géej gi mbooloo mu bari nekk ci gaal gaal goo xam ne bato la dafa fees dell ki nit gaal gi ñu ngi ci bind xidmatul xaddim peinture ko noir blanc nee na sëñ Tuubaa ne ci bopp bato bi sëñ Tuubaa euh, sëñ Aydara ne ci tefes bi nee na dafa jékki rek gis ku tedd ki ci wetam mu jël buum jox ko ko ne ko ay dara mu ne ko mbakke mu ne ko ñee ci biir bu kenn lab sëñ bi nee na loolu rof ko xaal muy xëcc di xëcc di xëcc di xëcc di xëcc ba mbooloo mi teer nee na bi muy daw di dabi sëriñ bi ci ci ci penk bi seen ko ci penk bi di daw di dabi ku tedd ki nee na sëñ ku tedd ki fittasu ko daal di koy joxoñ soow bi mu ne looloo waral bi ma waxtaanee mag ñi xam ne sëñ Tuubaa damaa liggéeyloo ci soow bi xidmatul xaddim boobu nag moo waral tur wi gaalu noir blanc boobu it moo waral couleur bi bi sëriñ bi ñëwee itam dafa daal wër dëkk bi lu mel ni lu mel ni lu mel ni quatre-vingt-seize la dugg tàmbalee dugg Dakar di wër dëkk bi di jàngat dëkk bi ba xam fi mbon gi gën a safee xam nga xam nga xam nga booy bay tool fa fa fa ñax wa gën a sëqee géejawaay daaru xan dafa bokk ci barab yi gën a dangereux ci ndakaar ci banditisme diggante marché bees tournal Sëñ Assane Baye Laye Daaru Xan maanaam luy dëng te ci Ndakaaru foofu la foofu la ëppee te ñooñu ñoo gën a doy waar ci dëng nag sëriñ bi daal di ñëw foofu sanc fa simol bi muy xew 96 nga xam ne Ndakaaru léegi la nga xam simol de ñun bi ñuy xam simol boobu kenn xamagut simol sëriñ bi ci digg simol yi la daan nekk di di ñan ñooy band yi gën a doy waar moo ma wax ne ci digg simol la déggee turu julde tey jii mooy jëwriñu sécurité liggéey bi waaw waaw ñii ma la mooy ci agresseurs yi gënoon a mag Ndakaaru dàqoon a la jël déedéet laay ñi gën a doy waar ñoo ñeneen lañ dañoo làqu sëriñ bi daal di tàmbale woote ca loola di leen invité di leen defar njari soow di waxtaan ak ñoom ci àlla di waxtaan ak ñoom ci sëñ Tuubaa di di ni ko Seex Aadam waxee di ñu téye ba fajar boo xëyee mu jëliwaat la fu muy dem ànd ak yow ba mujj gi cofeel gi ak bëgg gi damay wax ne ay dara bu santoon Mendy ñun dañ koy def suñu référence topp ko am ah, mu am na dëkk yi senegal gi ku fi xew rek xale yëpp topp la ndax nit ñi xale yi dañuy roy ñun bu santoon neneen dañ koy bëgg roy ko ndax lan jikkoom ak lawetam ak baaxam ñu koy fréquenté guddi ak bëccëg mu wax nag wax ju am solo daf ñoo dajale bañ ñëw mun nañu képp koo xam ne ay dara mbàkke moo la tax a ñëw solo sa dàll te ñibbi képp koo xam ne àgg ci yàlla moo la tax a jóg ñëwal ñu àgg ci yàlla ñu ñëwal ñu dem ci yàlla man ci yàlla laa jëm ne xidmatul xadim gii nag li ngeen sàkku fi man yéesut li saxaaba yi doon sàkku ci yonent bi yéesut li mag ñi doon sàkku ci seen Tuubaa na waaye nangeen xam ne kat ci géeju nattu laa leen di tàbbal su booba te te tey ñoo koy ànd sëriñ bi nekk ak ñun ci liggéey boobu guddi ak bëccëg du ñu wulli nag ni ñuy wullee der ñu ñu bàyyi njàng mi bàyyi lépp topp ko rek nekk ca loola waaye naxuñu waaw sëñ ay waaw ah, ñu de ba ci ba ci liggéey bii mu ñu joxit daf nañu cheikhul murabbi du ak pal du ndombal tànk mission la tenue de travail la du da ngay toog ci kaw nit ñi toog suuf de di foqi baaraam wala wuti taalibe déedéet kenn ku ne ci ñun dala bi mu noppee ci dane li ma def ci yow fexeel def ko ci say moroom lii mooy liggéey bi waaw ah, te te te nañu nag na na ngeen liggéey nangoo am métier te bu leen def seen métier tàllal te addiya bu leen taalibe yi àndil na ngeen fexe ba lewal addiya ji ndax borom daara ko doon wax na ngeen delloo nit ñi ci yàlla bu leen nax kenn lii lañu ñu àndeeg sëriñ bi loolu nag xidmatul xaddim nag liggéey bi daal di yaatu dem ba dugg Cees dugg ci barab yu baree bari dem ba Europe ak États-Unis fu nekk liggéey bi nag ni ñu ko tënkee mooy fu ci nekk jëwriñ ña nga fa am na comité bu mag boo xam ne mboole seen jëwriñ yi ci ne organiser wu mm-hmm. sëriñ bi daal di nag pérenniser liggéey bi mooy liggéey boo ko boo ko yoree di ko def ciy dënn da koy samp mu ñëw Kër Masaa nag samp fa daaree alxuraan ju mag dénku Serigne Khadim Mbacke Anta daare alxuraan ji lu jiitu loolu dafa am autorisation institut islamique ak école française boo xam ne dañuy tarbiye nit ñi di leen jàngal ci ñaari xam-xam yi waaye dafa ne damay jiital alxuraan keroog foofa biñ ko joxee dafa maa woo ba ma ñëw mu ne ma lii de addi Sëñ Tuubaa laa koy def ndax bëgguma bu ëllëgee sama doom di ko di ko di ko nangu ndakaaru ku fa am lu toll noonu ci suuf nga nga nga nga xaaj ko ci digg bi def ko addi Sëñ Tuubaa néew na ku koy def ta tabax na fa jumaa ju mag def na fay daaree alxuraan ba noppi daaree alxuraan jooju nag xale yaa ngi jàng tey mokkal ren ji waxuma waxuma wàcc waaye ren ji ñi fa mokkal ci alxuraan kenn xamu nuñ toll Sëriñ Xaadim Mbàkke Anta yor ko kon loola mooy tarbiya gi sëriñ bi di tarbiya ak daara yi muy taxawal te mboole seen nag jëwriñi kenn ku ne fa nga ne yor nga fa itam daara alxuraan joo xam dafa aju ci daara ju mag ji di daara ju mu tuddee ko soxna Faati Isa Jóob kon liggéey boobu ci la sëriñ bi di nekk nun nag mënuñoo wax ci moom ndax am na loolu boo ko waxee ci sëriñ bi dañ naan li muy taalibe moo tax moo tax Cheikh Adama léegi junj na ko euh, yaruñu ci loola lim ñu yar mooy ci jëf te néewal ay kàddu kon nag sëñ Gana ñu ngi koy sant bu baax ci yitte jii mu def ju kawe ji bugguñoo bugguñoo sotti li ëpp ci liggéey bi dañuy xaar ba plateau spécial ba li ñu bëgg a tàllal ci sëriñ bi dëgg ñu tàllal ko fa ndax sëriñ bi digganteem ak alxuraan digganteem ak maarifa digganteem ak tarbiya digganteem ak social digganteem ak social ndax ndax ku mën a dimbalee la do doy na sëkk rek mu jël mu mu jël ci jëmmam tabe ci darajaam ñun ñii mu defal nu ko te te te te te te ñun joxuñu sëriñ bi addi ju mat cent franc mënaluñ ko dara moom rek moo ñuy mënal boobu ba tey mu yëkkiwaat darajaam wékk nu ko fu ñu dem yóbbaale ko kon sëñ ay dara ñun ku ku ku ku fexe ku fexe ba nga sut koo warul sut kooku du sa moroom sa boroom la waaw te ci suuf la ñu fekk tekkiwuñu wuñu dara doonul lenn ñun ñëpp nag sama jëmm taxul may wax ñun ñëpp waaye ak baaxam lim ñu njëkk a xamal mooy man ay dara lu ma am dinaa ko bokk ak yéen waaye yéen lu ngeen am bokk leen ko seeni waajur loolu la ñu njëkk a wax ne nag maa ngi tàllal samay loxo di woo ñëpp je tends ma main à tous les fidèles sans exception à travailler pour Cheikh Ahmadou Bamba sans exception de race de culture ou de religion. ku mu sa yor mission da waat. ñu ngi def sa nii la wax la ko doon defee médecin yi la ñuy waat ne maa ngi woo ñëpp. Hmm. ngir ñu liggéeyal Serigne Touba. mu ne xàmmewu ma ci chrétien. déedéet xàmmewu ma ci tiijaan. Hmm. xàmmewu ma ci murit. Hmm. xàmmewu ma ci jullit. pour ñu ànd liggéeyal Serigne Touba. mu ne l'homme a été. créé pour être vicaire de Dieu sur terre pour marquer son. Euh, certes pour adorer Dieu mais également pour marquer son propre passage sur terre discours bii la daan tenir di ko wax nit ñi di yuuxu mu ko daan làkk ci njaago di ko làkk ci italien di ko làkk ci ay làkk yu bari ñëpp di ñëw di jébbalu wax naa la léegi am na ci jëwriñ yoo xam ne bi ñuy ñëw ci sëriñ bi bi leen sëriñ bi di for dañuy man màndi bay tërëf mokkaluñu faatiya tey jii ay daaree alxuraan lañ yor seeni doom mokkal alxuraan mokkal mën koo bind duñ ko xool kooku moo liggéeyal sëñ Tuubaa kookoo mën a defar te defar googu nii ko seex Adam waxee yóbbuwu leen fenn biir Ndakaar la leen defaree bañ sotti ba ñoom tey jii ña ña ña ña ngay defar ay nit bitim réew kon nag eh, sëriñ bi eh, ci defarkat yu mag yi la kon nag noo ngi koy sant di ko ñaanal waxtaan wi xam naa ne ñun ñoo gën a lott na gën a néew xam-xam ci njabootam dañuy jéem rek. Euh, salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu jërëjëf euh, Cheikh Ablaye. tubaarkàlla waxtaan wi na waxoon sëriñ bi rek naan guy li mar la. Cheikh Adama itam foofu la daanelee sëriñ Mohamed Lam. yow lu maam Thierno Birahim moom taxam ak Seydina Aliou tax na. Euh, menn moom moo mel nii mu mel ci ñu ni wooyee géwal wala communicateur. waaw ci ci ci dëgmal yàlla ak am lum ci mos ba bu waxee nga xam ni kii. am na am na fu ñu ko jaarale mm-hmm. yal na yàlla gën a yàggal sëriñ bi gën koo wéral te màggal gii nu jublu suñu borom yóbbu nu ci ak jàmm ak salaam euh, sëriñ bi bari na kook bu jubee bis bu toll ni màggal ak ni mu ci boo ko tuddee woon sax mën na koo gantal mm-hmm. ndax dañuy wax ni ku ne ci sànce dootal a doota la def cere yi cere yi ndawal waaye ñaare mbuub rek ngay def ngir lu ñu wax ngay demaa ne ci sànce mm-hmm. waaye sëriñ bi dëgmal màggal gi teewut bisub sëñ Gana bi mu jox ko yitte ju mat sëkk loolu nag mooy waree ni borom daaru muxti rek la bëgg daaw ci waxtu wii bi màggal gi desee juróomi fan buntu kër yi borom daaru yëpp li ko dalee ci kër sëriñ Mouhamadou Awa Balla ba ci kër sëriñ Xaalit fu ne dafaa jël nit ànd ak ñoom ñëw ñëw fii ci kër sëriñ Gànna waxtu yi fi la ñu fekk loolu fa la mbaax mën a yem loolu bu sëñ Gànna yoroon milliard mënu ko jënd te sëñ Alioune Aïdara ko defal kon nag Mbàkke yàlla nanga fi doon lay yàgg te ànd ak wér man Moustapha Guèye de personnellement loo ma wax gis naa ko t loo ma wax itam la ma gisagul laa gën a gëm ci li ma gis waaw ndax ndax wala fi dañuy wax ne gëm naa nelaw nag ndax loo lu ma wax rek naa ko te xam naa lu mu wax nga ko ñi ñiy seetaan it lu mu leen wax gis nañ ko ndax du waxee ba kanam yàlla na ko fi yàlla doole yàggal tànd ak wér amoon naa yéene ku ne defaat tour 20 minutes sax lañ bëggoon def neexaay waxtaan te wax def nañ 40 et quelques minutes te loolu dañ ko tàmbalee rek waxtaan wi ajjuma ak jàmm incha allah 21 heures ba 23 heures jàpp 0 heure Serigne Alioune Aidara ci plateforme yëpp Rafa TV euh, Académie Al Minan Touba TV boo jàppee kii yu bëree bëri euh, boo xoolee plateforme yu bëri daal incha allah da nga fa seetaan en direct jëmm yi ngay jàkkaar lool ka ko mooy Serigne Khadim mi nga xam ni nag ci wàllu maarifa Serigne Aliou Ndeye Dara dafa am lu mu ko ci defal lu wér teg ko na Serigne Touba defoon maam Thierno Birahim diggam ak borom xam-xam yëpp nga xam ni mbër la samp moo xam ni kenn mënu koo daaneel boo xoolee bayit yëm bind sëñ moor baraa Baraama Jaxate ba mu ko ko bindee ñëw ni day jàng si sëñ moor Mor dañu ko yow da ngay jàng si wala da ngay jàngale si waaye kooku bu fi teewee incha allah danañ xam ne sëriñ Aliou dina mën a defar yàlla na fi doole yàgg tànn wér ñu ngi jox ñëpp dig daje aljuma plateau spécial sëriñ Aliou Aidara ibnu sëriñ Ahmadou Dame Fati ibnu Mame Thierno Birahim ci wàccaayu bisub euh, sëriñ Touba bisub borom Daaru Moxti waaye bisub sëriñ Modou Maxtaar fii ci kër sëriñ Gana Messere Maxtaar bis bu war a doon dimanche Euh, ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février fii ci Daarul Moxti muy buñ ñëw suba la màggal gi ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mboolem ñi xam ni ñi ngi doon teewlu waxtaan yi fu ko mën a teewloo ci àddina bi sant nañ leen gërëm di leen wax ni incha allahu rabbi kenn ku ne ci plateforme bi nga nekk man nga faa toog bis bu yàlla sàkk bisu màggal ga dinañ amal plateau yoo xam dañ koy waajale màggal gi ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh